salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki alxaqu saabit ñu ngi leen di nuyu di leen di siyaare di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal bépp jullit ñu delsiwaat tey di am kontante di dalal benn kàngam ci kàngam yi muy professeur Galaye Ndiaye bi nekk Bruxelles ñu xam xam ko ci yëngatam ci wàll xoote euh, euh, jëm ci yàlla ci wàllu bind ci wàllu euh, orienté di wax ak xalaatam ci lépp loo xam ne xew na ci réew mi lépp loo xam ne xew na ci diine ji euh, professeur Galaye Ndiaye su fekkee yaa ngi ci ligne bi pour njëkkante kaa bi incha allahu ñu laaj la suñu premier laaj bi nga xam ne premier laaj la boo xam ne euh, sual aadi mooy ne professeur Galaye Ndiaye fan la juddoo fan la jàngee ak actuellement fan lay liggéeyee. te am kontaan lool ci dalal gi lay dalal tey ak disponibilité bi nga xam ne am nga ko السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي الحق ثابت والباطل زاهق مع الذي نيو كان كتنك تيان ديكواخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تي ام لول عندك ين تي وقتان وي nga xamé ni ñing ko ci E, mbir yi nga xamee ni lépp aju na ci e, mbas mi ñuy tuddee corona wala virus corona e, ñu fas yéene ci waxtaan ak lépp loo xamee ni jamono ji laaj na ko ci wàllu diini bi kii wax ak yéen nag Mouhamed Galaye Ndiaye lañ koy wax di ab sénégalais waaye juddoo fële ca Mauritanie fala juddoo fala jànge alquran fala daanaka Euh, yaro ba am ay dix-sept ans dix-huit ans mosoo koy joge ñëw Sénégal jàng ci école bu ñuy wax Manarul Huda euh, nekk ci Louga ba ma fa jógee soo koy dem Égypte dem ci Jamiatul Azhar euh, fa la amewaat bak waaye tamit fa la amewaat sama licence ba ma fa jógee tamit ma ñëw Sénégal jàngale foofu ci école Al Azhar jàngale ci école bi nekkoon Parcelles muy Miftaaxul Muna ak ci yeneen école waaye ba ma fa jógee laa dem nag Belgique euh, fa la defee sama e DEC 2 en philosophie defaat aussi euh, DEA muy diplôme approfondi en philosophie ci université de Liège bi nekk Belgique euh, ginnaaw gi nag laa ñëw commencé nag di jàngale ci université muy faculté des sciences islamiques bi nekk Bruxelles euh, ginnaaw gi aussi euh, ma jàngale ci beneen école bu ñuy wax al académiatul ulum lil ulum al islamia euh, te léegi mi ngi tudd académie islamique de Bruxelles ginnaaw ga tamit jàngale ma nekk directeur institut islamique bu Bruxelles bi nekk Bruxelles nekk aussi professeur en même temps di fa jàngale nekk aussi imam grande mosquée bu Bruxelles yooyu daal ci gàttu gàttal mën naa wax ni ak yeneen institution yu bari yoo xam ni jàngale naa fa loolu mooy sama parcours maa leen di ziare bu baax di leen bëggee. jërëjëf euh, professeur Mouhamed Galaye Ndiaye parcours bi wax dëgg yàlla riche na lool euh, euh, anta yaani ustaazun bi kulli maanil kalima bon suñu première laaj ak yow mooy dafa. comme li ñuy waxtaanee dafay aj ci wàllu corona di feebar bi nga xam ne moo lëmbi jamono suñu première laaj ak yow mooy ne corona dañoo wax ne dafa wirante bi da bari ñii ne mu loxol doomu aadama ko defar moo ko sos wala boog mi ngi ci ñii ne déedéet ci bàyyi ma la jugee ko ñëw contaminé doomu aadama mu tasaaroo ci àdduna bi ndax gis nga coow loolu euh, dana mas jeex wala dana leeri wala nag dafay euh, euh, des rek di coow ba kil bu kenn xamut salaamaaleykum wa rahmatullah waaw laaj bi nga laaj am na solo muy origine virus bi ñuy wax covid 19 maanaam origine bi fu mu jógee loolu question la boo xamee ni scientifique yi ñoom ñoo ci gën a war a mën a tontu que man en tant théologien waaye liñ mën a jàpp nga xamee ni ci li ñu jot a liir ak ci li jot a gis ak ci liñ jot a xam ci euh, évolution feebar bi bi mu tàmbalee ba léegi ci chronique yeeg savant yi nga xamee ni ak euh, prix Nobel euh, yoo xamee ni wax nañ ci prix Nobel yoo xamee ni borom xam-xam yoo xamee ni dañoo libre ci seen xam-xam ndax léegi amatuñ dara lu amatul dara lu leen di tënk loo xamee ni da nekk pression

waaye jaar na ci laboratoire loxol doomu aadama am na ci yoon loxol doomu aadama am na ci yoon c'est-à-dire que ni virus bi comme existé na comme virus yëpp waaye nag jaar na ci laboratoire ay borom xam-xam manipuler ko moom il a utilisé le mot manipulation xam ñoom ñoo ko manipuler ba virus bi tey jii dugal nañ ci ay éléments yoo xamee ni sax nee na ci feebaru sida ci nga xamee ni mooy AIDS maanaam ca la bokk nga xam dugal nañ ko ci biir pour jox ko dangerosité boo xamee ni dana am benn catégorie ci dow ci ci population bi ñoo xamee ni saayu leen atteindre rek bu leen dalee rek ñooñu dañuy daal daanaka faatu wala boog ñu am ay problème grave de santé euh, loolu euh, thèse la boo xamee ni avant moom mu koy wax sax man waxoon naa ko lu jiitu waxoon naa ko lu jiitu ci benn article bu ma bindoon en arabe tuddee ko ما وماذا لو كان كورونا من الجن ففسق عن أمر ربه nga xamee ni benn article la bu ma bind revue Dakar publié na ko beneen journal bu nekk fële ci Mauritanie revue scient bu borom xam-xam publié na ko ak yeneen ak yeneen ak seen seen arab bu bi nekk Sénégal publié na ko donc article boobu maa ngi ciy leeral ni Euh, laboratoire bi nga xamee ni moo nekk Wuhan mooy dëkk ba nekk ci Chine nga xamee fa la feebar bi jóge ñu tuddee ko laboratoire P4 laboratoire boobu français yi institut Pasteur bi nekk Sénégal seen loxo ñanga fa ndax ñoom ak ñoom ñooy liggéeyandoo foofa ñooy liggéeyandoo foofa ci laboratoire boobu maanaam ay associé lañu ci laboratoire boobu euh, feebar bi bi mu tàmbalee léegi bu ngeen xoolee euh, dangerosité bi ñu koy jox maanaam euh, gravité bi nga xam ni moom lañ ko jox buñ ko xoolee dinañ gis ni yeggul foofa lu dul ci nit ñi nga xamee ni am na fu ñu toll ci ci âge toll soixante cinq ans jël soixante dix ans ñooñu la feebar bi di gën a sonal waaye bu ñu xoolee grippe saisonnière bi nga xamee ni euh, chaque année dana rey luy tolloog ci soixante cinq mille personnes ba yegg ci six cent et quelques gis nga depuis le 6 avril euh, li nga xamé ni moy personnes yi nga xamé ni maladie bi japp na len ci aduna bi mi ngi nek ci un million deux statistique yi nga xamé ni mo ñewon le 6 avril 2020 nga xol ñi nga xamé ni wër nañu deux cent euh, personnes yo xamé nañu wér nañu euh, ñi nga xamee ni ñoo ci dee yegg nañ ci 69527 donc statistique si avril donc ñu estimé ni kon li yokk na bu ñu xoolee population adduna bi 7 millions 794 794 euh, milliards d' individus ñu gis ni kon li grippe saisonnière bi di rey moo ëpp fuuf li nga xamee ni moom la coronavirus bi di rey bi mu tàmbalee ak léegi kon loolu yëpp boo ko xoolee da nga xool aussi crise financière bi nga xamee ni àdduna bi ci la toll nga xamee ne ay borom xam-xam ay économistes yu mag a mag a mag a mag bu ñu amoon temps dañuy citer seen tour ñoom ñëpp wax la ñu wax ci ni deux mille vingt bi crise économique bu mag dina xamee ne dina moo doon waroon a am ci àdduna bi donc loolu yëpp ñu ko xoolee dinañ gis ni virus bi donte virus la comme virus yëpp waaye loxol doomu aadama dugg na ci bu wér a wér a wér manipulation am na ci ak yeneen ak yeneen yoo xamee ni état yi politique bi nga xam ne moom lañ taxawal muy politique de confinement wala boog état d'urgence comme i am Sénégal ak yu demee noonu surtout nag ci pays occidentaux yi dafa am lu bari lu bari loo xam ne moo ci laxasu ba suñu toll nii may wax ak yow am na ay plainte yoo xamee ni plainte nañ ko gouvernement euh, gouvernement yi moo xam ministre yi nga xamee ni wax nañ lu dul dëgg ñu gis ni fenn nañu waxuñu lu dul dëgg ak président yi nga xamee ni ñu ngi manipuler seen peuple ak médecins yi nga xamee ni ñoo complot ak politiciens yi tey jii ci boo demee fu mel ni France plainte yu bari ba dañu mujj sax daf créer benn site tuddee ko victime maanaam corona victime avec S nga xamee ni képp koo xamee ni am nga lu la metti nga dem jaar foofu ñu jàppale la wutal la avocat bu ko defee nga mën a euh, jël sa àq xeex gouvernement yi parce que euh, même tey jii rek en Belgique am na ay mouvement yu juddu yoo xamee pour contre le confinement parce que dem nañ ba gis ni nekki confinement bi en fait euh, c'est une façon de de delluwaat ci esclavage delluwaat notaat doomu aadama yi ndax banquiers yi ci àdduna bi actuellement ñoom ñoo jóg pour gën a notaat doomu aadama yi gën a appauvrir ñi gën a pauvre waaye tamit ñi gën a am alal gën a di am alal donc euh, mbir mi li ci laxasu dafa bari lool lool xajul ci benn jotaay. jërëjëf euh, professeur ñu euh, jàll bon bi laaj bi ci topp mooy ne kii di mu munasamatul siha al alamiya muy OMVS. dafa joué na rôle bu am solo ci wàllu dékku lii di feebar bi taxaw ci wante ñu gis euh, kii di euh, président bu amerique mu mu leen di tuumaal ne la leen ci war defuñ ko ba taxaw sax ne sobo ñu dee waaye seen li mu laan leen jox milliards yi mu laan leen jox par par année pour ñu ci liggéey nee na dootu leen ko joxati ndax euh, taxawaay ba ñu war a taxawaay taxaw wala waaye ba ñu war a taxaw defuñu ko Eh, ndax da gis ne noonu la demee wala moom dafa bëgg a nëbbu eh, moom tamit échec bi nga xam ne échec na ko ci dékkul feebar boobu ak doom yu bari yi nga xam ne rey na ko ci Amérique nit ñu bari yi nga xam ne rey na ko ci Amérique ndax eh, échec boobu la bëgg a nëbbu moo tax muy tuumaal ñi de gis nañ ko sax muy tuumaal it ay gouverneur ca dëkk ba ndax loolu la wala ñoom ñee dañoo taxawut nañ war waaw sëñ Pape Ndiaye euh, laaj bi nga laaj am na solo lool macha allah euh, muy euh, li dox diggante l'OMC l'OMS pardon muy organisation mondiale de la santé ak li am digganteem ak Donald Trump muy président am États-Unis xam nga conflit d'intérêt la ay conflit d'intérêt la waaye ñoom wuute wuñu maanaam li ma bëgg a wax mooy ni juwoowuñu ñoom ñoo bokk ñoo bokk seen lépp ndax euh, kenn umpale woon ni lii di nga xamee ni mooy Nations Unies ak organisation mondial yi nga xam ne yu mag yi nga xamee ni yëpp dafa aju ci àdduna bi nga xam ne àdduna bekk bokk Amérique moo ëpp xaalis bu mu ciy def loolu ñëpp xam nañ ko kon loolu mooy wane ni ak ndogalam ak euh, kàddoom ca foofa moo fay gën a am doole loolu lay tekki ndax àdduna bi moom lépp xam nañ ne xaalis moo koy doxal euh, ba tax na euh, mani la ñoom wuutewuñu ci dara ay conflit d'intérêt la ak ay manipulation politique yoo xamee ni comme ni nga ko junjee nga xamee ni bëgg na euh, réglé situation politique ci biir réewam waaye li ma la mën a wax ci gàttal rek mooy ñoom ñaar wuutewuñu gis nga dinaa sax gën a sori ci ci ci wax ji gis nga lii di Fonds monétaire international ak lii di euh, l'OMC muy organisation mondiale du commerce ak lii di organisation mondiale de la santé muy euh, OMS ñii ñëpp wuute ci dara ndax ñoo bokk gis nga lii xew ci àdduna bi yëpp ñoo ko nas ñoom ñoo ko nas parce que euh, boo xoolee àdduna bi ni muy doxee lii nga gis ni réew yi Euh, muy mu mel ni France nga xamee ni tey jii moom laa gën a jege en tant que ku nekk Belgique nga xool ni ñu doxalee ci confinement bi nga nga xool aussi euh, nombre ñiy dee ak euh, ñi nga xame ni dañuy wax ni wér nañu nga xool ci li nga xamee ni mooy masque problème mu masque yi nga xamee ni xamoon nañu ni feebar bi li ko gën a mën a téye muy masque mais gis nga ko ñoom dañu ne woon amoon nañ ci ay stock yoo xamee ni jënd nañ ko ba teg ko ba defar ko ba teg te loolu yëpp euh, ginnaaw gi gis nañu ni dara du ci dëgg euh, ba tey ji ñuy wax ak yow gisoo benn politique de masse boo xamee ni dañuy distribuer masque yi pour population bi yëpp euh, masque boo xamee ni ab tailleur sénégalais rek mën naa juróomi tailleur rek mën nañ koo defal tout le Sénégal ñoom dëkk yoo xamee ni avancé nañu ni ñu toll ci àdduna bi ci wàllu xam xamee am nañu ay machine sophistiquées yoo xam ne mën nañuy defar ay millions millions yu masques par jour ba tey jii defuñu ko parce que bëgg nañu confinement bi continuer bëgg nañu pandémie bi continuer ndax ci la ñuy régler ay situation économique yu mag a mag comme ni ma la ko junjee léegi ci crise financière bi nga xamee ni moom la àdduna bi toll te banquiers yeey nekk ci ginnaaw loolu nag euh, euh, ku mel ne man bu ko waxee en tant que théologien nga xamee tu n'es pas ci ay banque Euh, boo ko waxee danañ la laaj ay firnde waaye firnde yi euh, bu ñu demee ba ci kanam tuuti parce que lépp ñu ngi ko teg ci ay analyse ak ay fait yu wóor a wóor yoo xamee ni képp ku xam économie occidentale xam lu ñuy tuddee l'idéologie occidentale nu muy doxee di nga xam ni euh, mbir mi am na loxo yu ci dugg te loolu sax tubaab yi nga xamee ni ñoom ñooy citoyens yi muy lu ñuy tuddee société civile commencé nañu sentir loolu ba ay révolte yu bëri ay manifestation yu bëri ñu ngi commencé di juddu fii ci Occident pour xam nañu ni dañ leen a bëgg réduire en esclavage. jërëjëf euh, professeur waaye nag attention il faut nag ñu euh, nu mu tuttiwaat pesewaat sa wax sa wax bi ci gannaaw ñu aliéraat ci mooy ne yow da nga gis ne li grippe di rey ci at feebar bii di con euh, di corona du ko rey ba tax na coow lu bari lii yëpp ay complot la. Eh, ndax danga gis ne àdduna bi yëpp kenn ku nekk eh, confinement bi it bugg a delloo si nit ñi ci eh, ak njaam la ak nangam nangam am na ñu taxaw ndax danga gis ne waa ñi nga xam ne ñoo jiite àdduna bi ñoo jiite ay président lañ ay nangam nangam di def confinement seeni dëkk ndax da nga jàpp ne ñoom ñëpp dañuy nu mu tudd dañuy complot contre seen peuple. économie bi ci daanu nii nga yaakaar ne yooyu yëpp ay ay complot loolu daan wax ko dafa mel ne dafa wax dëgg yàlla dafa xaw a mel ne ay gént te ñu ba ba xel ne eh, ni eh, grippe yi passé di rayee walla li ñuy li ñuy wàllaatee ak bii bokkul parce que bii eh, ci diiru weer rek mën na tëral am réew yëpp bi fekkee ne li nga xam ne mooy digale defuñ ko ñu ngi dox nañ lan doxee du dundee nañ lan dundee benn weer am réew yëpp mën nañoo tëdd ci lali hôpital yi bon affaire bi bokkul loxol doomu aadama ngi ciit wax dëgg yàlla benn docteur fii wax nañu ne eh, lii di eh, lii di noonu nu mu tudd ci eh, lii di wabaa bi doomu aadama maanaa cosaan bi doomu doomu aadama munu ko munu koo munu ko munu ko defar virus ne doomu aadama mënut a defar virus virus yàlla moo koy defar waaye doomu aadama mu mënu ko defar bon sa wax boobu il faut ñu defaat ci euh, euh, muraaja waaw ma rax ci dolli rek wax la ni la euh, gis nga virus bi dañ koy nëbbatoo maanaam tey ji banquier yi organise yu mag yi ak état yi nga xamee ni ñoom ñëw complot àdduna bi fi mu toll nii parce que gis nañu ni système économique bi nga xamee ni moom la ñu gënoon a Euh, yaakaar ni mën naa doxal àdduna bi muy le capitalisme libéral gis nañ ni daanu na gis nañ ni ndërmeelu na gis nañu ni amatul euh, capacité pour mën a diriger àdduna bi ba tax bourse bi wàcc moo xam bu nekk États-Unis moo xam bu nekk France quatre quarante yépp fi mu toll nii dañoo ndërmeelu daanu ci suuf te loolu wax naa la ni la ay prix Nobel ay scientifique ay économiste waxoon nañu ko ni deux mille vingt te dañ ko préciser woon deux mille vingt crise financière bu mag dana am ci àdduna bi kon fi mu toll nii joxañ virus boo xamee ni kenn du ko teg bët ni moom mooy sabab bi ñoom ñu régler ci seen ay problème économique mën a redresser waat àdduna bi tegaat beneen ordre mondiale bu bees ci la ñu nekk actuellement nii te loolu ñi nga xamee ni ñoo nekk fii ci dëkk tubaab yi commencé nañu di ko sentir ba ay mouvement yoo xamee ni yu bees ñi ngi commencé juddu di commencé révolter contre état yi di commencé aussi di casse ay droit xam nañu ni corona bii nii feebar bii nii prétexte la rek boo xamee ni dañ ko fee teg ndax niñ ko expliquer léegi ci ni euh, grippe bi muy grippe saisonnière bi nga xamee ni moom euh, li muy rey mu ëpp fuuf li li li virus bi di rey te médiatisation biñ ko defal bokkul ak médiatisation ñu defal bii propagande bi ñu ko defal coronavirus deful ñu ko bee kon am na lu lu wéer a wéer a ci képp koo xamee ni boroom xel nga yaa ngi liir yaa ngi xam li xew ci Occident xam nga ni manipulation bu mag a mag a mag ñu ngi comment ñu ngi koy ràbb ci suuf te bu ñu demee ci kanam tuuti. ak tamit euh, loolu euh, ak leneen loo xamee ni rax na ci mooy ni euh, li daan dee ci grippe bi comptabiliser wuñ ko ci lii dee ci corona bi maanaam tey jii ku dee ci corona ku dee ci jamono ji dañu naan corona bi moo la rey. léegi ña daan dee ca grippe bi chiffre boobu moom anamu est-ce que comptable bi est-ce que génnee nañ ko ci chiffre yi ñuy joxe nii mooy wane ni manipulation bu mag a mag a mag a mag débat boobu sax amoon na fii ci Belgique fan yi passé ci ni est-ce que chiffre yi ñuy jox kenn manipuler wu ko gis nga àdduna bi ku ko xam dëgg-dëgg te li ñuy wax ni ce sont des scientifiques ay boroomi xam-xam ñoom ñoo jóg taxaw wax ko kaas ko ci àdduna bi euh, ku xool rek kaaw Euh, DJ Raoul médecin boobu nekk Marseille ku xool kaawam rek étudier ko xool li ci laxasu lépp nga xam ni am na lu laxasu bu wér a wér a wér ci virus bi ci wàllu économie boo xamee ni ñu ngi koy waajal pour adduna bi loolu euh, loolu nga wax ni euh, li muy tëral ci doomu aadama mën a handicapé économie mi réew mais ñan ñoo jël décision yooyu lu dul gouvernants yi gouvernants yi ñoom ñoo jël mesure confinement bi ñoom ñoo yore chiffres yi ñoo ñoo koy joxe euh, ñooñu nag ñoom ñoo nekk ginnaaw ci ginnaaw li yëpp ñuy wax nii donc euh, li ñuy wax euh, moo tax ma ni dina jafe lool ci ab théologien mu ñëw di saxal tees bu ni mel parce que lu tax parce que du scientifique du du du économiste boo xamee ni il les les données en main mais li ñu mën a wax mooy mën a sukkandiku ci waxu scientifique yi Euh, théologien boo xam ne dafay sikko sukkandiku ci waxu économie si ñoom lan la ñu wax waaw bu ñu bëggee analyser mbir mi foofu lañ koy teg ndax mbir bu nekk dañ koy delloo ca ña ko xam fasalu wasalu fasalu ala zikri in kuntum la taalamoon donc dangay di dellu ci ñu xam ñoom ñu wax leen li nga xam ni moom moo am euh, manipulation des chiffres dafa am euh, mooy même tey jii ñi mu ngi mel ne tey jii réew mel na Sénégal su ma la doon jox misaal bu gàtt tey ji bu que Sénégal il et quelques cas mais c'est faux parce que xam et quelques cas yi testé mais Sénégal est-ce que capacité de tester 1500 personnes comme que yenn tester 1500 personnes pour mëna xam ñaata cas donc ni euh, ba ci Belgique ba ci fi ci Belgique toll ñi nga virus euh, corona te amuñu problème de respiration kenn du leen li nga ne doxal ci mi souffrir ak lu a xew dañ naa la sa donc mbir mi lu laxasu ci ginnaaw bu ni virus bi loolu musuma ko wax dama ni virus bi ni virus yëpp amee mais virus bi dañ koo manipuler dañ dans les laboratoires loolu la wax kon il faut que ñu préciser wax waxuñu ni doomu aadama moo créé virus dañu ni doomu aadama fekk na virus bu exister mu jël ko manipuler ko dans les laboratoires. professeur euh, macha allah xam naa yow li nga opté mooy ne manipulation ngir intérêt wante mahales léegi bon suñu laaj bi ci toppaat mooy ne euh, dañoo gis ne corona bi delloo na nit ñi ci yàlla. Amérique mi ñu yaakaaroon ne mooy cendrema eh, eh, àdduna bi ak eh, néew dooleem feeñ na ci kanaaw feebar bi ndax gisuloo après corona bi dana amaat yeneen takkatulaat yeneen groupe wala yeneen xoolin ci organisation internationale yi wala du sensé dara naxoon rek mooy waaw Serigne Pape Ndiaye maa ngi lay ziare bu baax laaj yi ngay laaj am na solo na niveau intellectuel macha allah euh, li nga mujj laaj am na solo am na solo lool est-ce que corona bi tey amul delloowul doomu aadama yi ci yàlla subhanahu wa taala effectivement euh, lu xew rek doomu aadama bi en tant que ku am ngëm am loo gëm dana la delloo ci yàlla subhanahu wa taala waaye gis phénomène bu amee Il am regard le regard des gens de la foi am le regard des gens ils ont la foi ou bien même ils n'ont pas la foi mais ils ont un regard euh, intellectuel et beaucoup plus scientifique donc euh, ce phénomène bi ñaari regard là yu bokkul ngi Euh, gaynde gi nga xamee ni moo fekk till bi ci àll bi mu dàqe ko ba jàpp ko fàdd ko euh, mu xool ci gis ni euh, lion bi ni mu foore ak ni mu baree doole ak ni mu gaawe ba dem jàpp till bi ba rëj fàdd ko maanaam fas yéene ko añi wala mu ndekkee ko wala mu reere ko am ci koo xam ne mi ngi xool yërmande sunu borom ci biir loolu yëpp mu ngi gis yërmande sunu borom gis ni euh, gaynde gi euh, doole ji ko yàlla may en fait moo tax mu mën a dund nekk ci forêt bi maanaam mën a continuer di dund bu ko amul woon tey jii nu mu ci lan lay dundee am ci ñoo xamee ni ndeysaan ñi ngi xool euh, ana yàlla nan la mën a seetaane lu mel nii nga xamee ni gaynde gi ëpp doole kële rek ñëw not ko dàqe ko ba jàpp ko rey ko gis nga loolu yëpp ci benn mashhad ci benn euh, scénario ñu mën ci am gis-gis yu wuute yooyu yëpp euh, noonu la demee ci mbirum corona bi am na ci ñoo xamee ni fois rek lañ ciy doxee mooy lan mooy gis nañu ni euh, loo xamee ni kenn mënu koo teg bët mu ndawa ndawa ndaw ba kenn mënu koo teg bët te jii moo yëngal àdduna bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp am na benn bo tchadien boroom xam-xam bu bindoon lu mel noonu Euh, jàppatuma phrase yi mu waxoon dafa ni le monde ébranlé xawma euh, la société euh, xawma nu mu ko waxeeti waaye nee na à cause d'un petit machin un petit machin maanaam benn affaire bu ndaw a ndaw a ndaw boo xamee ni moo ébranlé àdduna bi yëpp yëngal àdduna bi yëpp am na ci ñoo xamee ni foofu rek lañ taxaw di ko xool gis ni yàlla moo nekk ci ginnaaw loolu ñu koy xoole théologiquement xoole ko ci seen wàllu ngëm am ci ñoo xamee ni euh, xëy na ci ku mel ne man xoolewul mbir yi noonu xoolewu ma ko rek ci wàllu foi donte foi ngi ci biir waaye man ni ma koy gisee mooy ay fait yu nekk sama kanam ay fait ay euh, loo xamee ni maa ko jàng yër ko gis ni borom xam-xam diw euh, économiste nangam scientifique nangam médecin nangam nekk réew sangam wax na nangam ak nangam économie mondiale bi fu mu toll borom xam-xam yi liñ ci bind ñu mel ne ñoom Joseph Stiglitz nga xamee nee nañ ka le capitalisme perd la tête ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamee ni waxoo li yépp di xew ni ci wàllu économie xam nañ ko nga jàngat aussi Occident la crise 2008 bi ba léegi euh, nga xool aussi après le 11 septembre la xew ci àdduna bi ak pays arabe yi ñu attaqué lépp pour wane ni dañoo war a xeex terrorisme war ko fekk fa mu juddoo ñu war ko faa maanaam jële euh, rey ay doomu aadama yu bare bare lépp ci ay kàcc ak i nar yoo xamee ni ay sos yoo xamee ni dara du ci dëgg loolu yëpp nag ku ko xam ak nga jaar ci dund ko gis ni mensonge nga xamee ni Occident ci mensonge lay lay dund nga xam ko euh, bu ñu la waxee ni la théorie du complot bi mooy continuer toujours ci forme bu bees comme ni nga xamee noonu la ñuy coloniser suñu réew yi nga xamee ni dañoo jàppoon bu njëkk def ñu ay jaam ñu dem ba mu yàgg ñu génn ci esclavage dugg ci colonisation ñu génn ci colonisation dugg ci décolonisation jóge foofu ñëwaat ci néocolonialisme ba tey jii ñu jàpp ni am africain yoo xam jàpp nañu ba tey jii ñoom dañoo libre am nañ seen réew am nañ seen président ñoo ko falal seen bopp te faluñu ko euh, libre ñu amuñu sax ko euh, maanaam indépendance regard boobu nag mooy regard bi nga xam ne borom xam-xam yi moom la ñu war a am du rek lépp lu ñëw rek ñu ni yàlla la da yàlla tamit dafa bëgg doomu aadama yi tax mu jox ñu xel jox ñuy xalaat dafa bëgg ñuy xalaat ci fee yi maanaam di tirer ay conclusion boo xoolee yàlla ay yu bëri bu ko waxee pare dana inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkaruun yaqiluuna yi nekk ci alquran yëpp yàlla dafa bëgg xew-xew yëpp ñu am ay gis-gis ak i njàngat yoo xam ne dañ ko ci am waaye rek du ni rek jël lépp rek jébal ko sunu borom subhanahu wa taala moo tax kon li ma bëgg a wax mooy ni d'après faits yi d'après li nga xamee ni moom la ñu gis ci li xew ci ci ci feebar bi boobaak léegi ak euh, euh, mensonge yi nga xamee ni am na muy mensonge d'État mensonge des ministres mensonge des scientifiques loolu yëpp bu ñu ko gisee ak manipulation bi am ak politique bi nga xamee ak exagération médiatique bi nga xam ne moo am ci mbir mi danañ gis ni euh, corona am na mais après corona mooy li nga laaj mooy la nar a après corona loolu junj nañ ko mooy wane ne xam nañu ni la capitalisme daanu na nërmeelu na loolu la occidentaux yi ba léegi mënuñoo dugal seen biir xel parce que amuñu lu ko gën amuñu beneen système bu gën la capitalisme kon léegi li fi nekk mooy lan mooy nañ ci jàpp waaye tamit euh, la xewoon 2008 crise bi amoon muy crise financière dañoo jëloon xaalisu doomu aadama yi population bi injecté waat ko ci système bi pour système bi mën a continuer di dox waaye réglé wu ñu woon situation situation bi nag dem na ba yegg ci njobbaxtaal gi en deux mille vingt lépp ndërmeelu léegi nag il pour ñu mën a tabaxaat économie bu bees pour ñu mën a loo ni ñi ñu leen toog leen seen kër yi bu leen génn di manifester bu leen génn léegi xaar leen ñun ba ñu tabaxaat économie bi ba lépp mat loolu moo indi mesure de confinement yu yàgg yi ngay gis ni loolu yëpp pour mën a tabax économie bu bees ci diggante bi balaa doomu aadama yi di am seen liberté mën a génn pour mën a kaar seen ay droit euh, euh, après corona waxoon naa ko ci sama article bi mu leen juddoo bi mu leen waxoon chômage bi day gën a bëri entreprise yu mag a mag euh, multinationales yu bëree bëri bëri yu bëri danañ lërmeelu ci àdduna bi euh, ndax lu tax parce que beneen système économique mondial bu bees la boo xamee ni postmodernisme moo ko indi lu ñu tuddee mambaada jërëjëf euh, professeur euh, léegi suñu beneen laaj bu ci toppaat mooy ne ñàkk yi nga xam ne doon nañ ko fi wax pour doomu Afrique yi pour limiter seen seen naissance wala seen juddu bi seen bari bari gi waaye gu ñu bari pour ñu limiter ko ndax dañoo bari Euh, wala pour euh, euh, e-, e-, examiner kii lii di ñàkk pour faj lii di corona da gis na loolu eh, waxu mbedd la wala réalité la. loolu du waxu mbedd c'est une réalité bu wéer a wéer a gis nga fi mu toll nii boo demee ci surtout Jeune Afrique am na vingt pays yoo xamee ni d'accord nañu joxe seen suuf seen dëkk pour ñu def ci ay test Euh, pour euh, feebar yeeg lu mën a xew nga xame ni ci seen biir dëkk joxe nañu autorisation pour ñu mën a euh, def test yooyu ci seen population loolu yëpp li ko indi rek mooy ñàkk ak ñàkk organiser suñu réew yi ba tax na occidentaux yi ni ma ko waxee woon ci beneen émission bu ma defoon mooy fii daal mooy sën sën bi mooy Afrique Eh, te tubaab bi dañ koy wax clairement dañuy wax ni ñun bu ñu defalee médicament dañ koy yóbbu Afrique eh, ana ñaata médecin eh, tey jii am na benn femme boo xamee ni médecin la bu mag a mag a mag ci ci ci ci ci àdduna bi jiite woon ay laboratoire yu mag a mag ab africaine la française la dañ koo dàq ci liggéeyam dañ koo dàq ci liggéeyam parce que lu tax parce que dafa dem ba gis ni médecin yi ñuy yebal ñuy ñëw Afrique di di di ci africain yi maanaam mosuñoo opérer doomu aadama maanaam Afrique lañ njëkkee a ñëwee ñu jox leen nit leen xotti leen biir bi ngeen opéré ko nga xamee ni fa la ñuy jàngee ba mën maanaam médecins occidentaux yi ngeen di dégg fii ñu naan dañoo aay ak ci yaramu africain yi la ñu xottee xotti xotti ba doyle ray ray ray ba doy le soogay mën a xam mën seen liggéey loolu c'est un fait boo xamee ni médecins yu bëri tey jii ci Occident dëppoo nañu ci loolu ba am na sax benn mbootaay boo xamee ni créé nañu ko pour mën a xeex maanaam lii xew ci wàllu médecine lii ma leen di waxee ni Guinée la xewe woon ak tamit test yoo xam ne dañ koo defoon ci ay xale guinéen yoo xam ne dañu leen a rey test ya benn baaxu ca ñu dee ba pare organisation bi nga xam ne moo ñëwoon muy institut Pasteur rek ñi nga xam ne ñoo fa newoon dañoo lank ni duñ ko déclaré maanaam comme ay africain lañu dee moom garaawul moom garaaw jarul ñu koy déclarer jarul ñuy tëj laboratoire bi alors que bu fekkoon ni ci Occident la xewee benn nit rek benn nit bu deewee ci ci test rek dañuy tëj laboratoire bi ca saas dañ koy tëj waaye bu dee africain moom moom ak ay njéeréer yu dee ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo tolloo euh, tey jii même test yi bu ñuy fay bu ñuy fay ñi nga xamee ne ñoom lañ ñoo nangu ñu def ci ñoom test yi euh, tey jii bu dee africain la vingt euro lañ lay fay wala quarante euros la ñu wax bu dee kee nag bu dee ab occidentaux six mille euros loolu nga xool six mille euros ak quarante euros maanaam différence bi nu mu toll loolu yëpp mooy wane ni ñun moom teguñu ñu ay doomu aadama euh, ay bàyyi ma la ñu teg ay cobaye la ñu lépp loo xamee ni mooy xew ci Occident ci africain yi la ñuy ñëw fa lañ koy testé ba gis ni lii baax na naka noonu seen déchets nucléaires yi gis nga ko noonu dañuy maye ci su joxee ci suñu suuf euh, ñu ñëw suur ko fi denc ko fi nga xamee ni bu yàggee yàgg la muy jur ak la muy rey ci doomu aadama ak la muy meññal ci ay maladies loolu yëpp euh, sunu borom xam-xam yi ñi may wax ñi li may wax nii du loo xamee ni xam-xam bu xóot la ñi jàng ñëpp xam nañ ko borom xam-xam yi nekk ci réew mi Sénégal yëpp xam nañ ne lu mel nii am na waaye lu lu tax duñ ko wax lu tax duñ ko wax. Euh, li tax duñ ko wax mooy ñu ci bëri jàpp nañu bu ñu ko waxee euh, xëy na tubaab yi dañu leen mere dootu dootuñu am visa pour mën a dugg France wala boog euh, dootuñu mën a am yenn renommée yi wala yenn poste yi dañ naan ñi dañoo contre Occident et cetera dootuñu leen invité ci conférence yi mag ci xew ci àdduna beeg yu demee noonu waaye dama jàpp ni rek doomu aadama toujours dafa war a engagé wu pour cause yu am solo ci àdduna bi wax dëgg te yàlla rek tax sauver ce peuple defe naa ne jàpp naa ne boroom xam bu nekk loolu mu gën a nekk yiteen bi li ma ciy dolli tamit mooy nii euh, gis nga corona bi comme la xewoon ci Sida rek France la juddoo après ñu toog ba mu yàgg léegi ci Afrique la ëppee ci àdduna bi fa lay tasaaroo boo ñëwee ci Occident yi daanaka da naan la léegi daanaka bareetu fi wala bu ko canaliser nañ ko waaye gis nga fi mu toll nii bu ñu demaatee tuuti ci kanam waxoon naa ko ci audio yu njëkk ya ma njëkkoon def ci beneen émission waxoon naa leen ni leen euh, corona bi bu jeexee ci Occident ba confinement bi jeex ba ñu génn ci da dégg ni Afrique la euh, bon ki jiite ki jiite euh, euh, Nations Unies wax na ko ja jamono ji secrétaire général wax na ni li mu gën a tiital mooy africain yi xam na ni ay millions yu doomu aadama danañ ci dee ay millions yu doom parce que ñoom li ñu programmé xam nañ ko li ñu programmé xam nañu ni ñoom danañu neutraliser mbir mi fii ci seeni réew ndax programmé nañ ko ba pare xam nañ fu ñuy jaar waaye ñun ñi nga xamee ne ñun amaguñu euh, système de santé bu dëgër euh, population yi ñàkk geeg ak dëkkandoo yi ak euh, demlanteeg dikkalante bi xam nañu ni virus bi bu tasaaroo ci ñun musiba yu mag a mag mag a mag mag lay lay jur ba fi mu toll nii may wax ak yow am na luy tolloog cinquante ONG occidentaux yoo xamee ni jóg nañu ni dañoo bëgg dimbali ci Afrique loolu moom béboo ngeen jàpp ni am na taxaw na ba pare ba ñoom ñu ngi commencé di di defal seen i valise pour jëm proviseur macha allah tontu wala wane na ku gëstu nga e, gis nañu fi benn président ci Afrique bu taxaw ne moom e, ay xaritam yu nekk Canada boole nañ ko ak e, nangam yi benn organisme nangam organisme nangam yi pour ñu ñëw dëkkam pour essayer fa lii di ñàkk yi loolu moom wax dëgg yàlla lu ñu gis la mu taxaw benn président ci Afrique di ko wax bon am na yoo xam ne wax dëgg yàlla. bu kenn mënta wax na ñëpp dañuy complot it euh, wala ay menson dafa am ci politiciens yi médecins yi économistes yi yëpp mbëmbëstal leen am na ci wax dëgg yàlla xam nañ ne ak naïveté am na ci euh, Afrique wax dëgg yàlla léegi économie dëkk bi àdduna bi euh, ku nekk xam na ne wax dëgg yàlla déebale na maanaa loru na loor léegi nag ndax gis nga ne gannaaw corona dana gaaw a jógaat ñoom comme dañoo komplo euh, ndax am nañ système bu gaaw boo xam ne danañ ci taxawaat pour euh, systémare loolu. waaw euh, après corona est-ce que tubaab yi prévoir nañu système bu bees waaw waaw waajal nañ ko ba pare waajal nañu nouvelle ordre mondial bi nga xamee ni système économique bi nga xamee ni moom mooy continuer. parce que man li ma jàpp gëm ko ba tey jii te jàpp naa ni euh, fu dëgër laa taxaw fu dëgër a dëgër ndax du rek dama tëdd ba yeewu naan sama kafe lekk sama ceebu jën rek jóg di wax déedéet dafa am euh, alhamdulilah euh, yër nañ lu bëree bëri bëri ci occidentaux yi seen borom xam-xam yi seen prix Nobel yi seen scientifique yi seen économie yi li ñu bind lu ci bëree bëri bëri yër nañ ko yëruñu lépp nag waaye yër nañ ci lu bëree bëri bëri xam ci lu bëri bëri bëri xam aussi Occident ni muy doxee euh, ci koo xamee ni xam na idéologie occidentale depuis colonialisme ba léegi euh, depuis euh, esclavagisme ba léegi ni muy doxee maa ngi fàttaliku ni benn française intellectuelle ci jamonoy crise bi amoon Libye ñu ni ko waa léegi yéen lan ngeen di wuti Libye ak Xaddafi Euh, ñëwoon na fii fan yi passé rek ngeen defal ko tapis rouge euh, mu jël ay xaymaam teg ci buntu champs mel ne ab roi tey jii ngeen ñëw ni moom mooy bande bi gën a mag ci àdduna bi bëgg a ñëw taas réewam bëgg ko tasaare mu ne waaw effectivement parce que sunu oto yi nekk ci biir réew mi muy oto yeeg euh, avion yeeg sunu machines yi nekk ci biir kër geeg yi nga nga xamee ni pétrole ak essence beeg yooyu ñoo koy doxal te ñun amuñu ko suñu réew yi amuñu ko kon te dañ ko war a jigaan jéggaani comme moom lànk nañ duñu ko jox dañuy dem foqatiku gis nga ko noonu loolu moom mooy xalaatu Occident ku kuy dund ci Occident xam nga ni noonu lay dundee moom li ma soxla ci yow danga ma koy jox ba ma ko joxul ma créer guerre ci sa biir dëkk wala ma folli président bi fal keneen koo xamee ni lu ma ko laaj mu jox ma loolu moom mooy Occidentaux yi noonu dañuy doxee ndax esclavage moom jeex na euh, colonisation jeex na léegi li fi des rek mooy am lobbying influence bu mag ci état yeeg chef d'état yi ba liñ bëgg ci réew yooyu donte pétrole ak gaz ak lépp daf fay feeñ danañ fexe ba jël ko ci réew ma te du leen coûter dara dara dara dara ku ko bañ président bu ko bañ ñu fexe ba créer créer problème yu mag nga jóge fi euh, wala bokk ñu créer guerre nga lank ñu créer guerre ci sa biir dëkk tuumaal la loo xamee ni amul ca biir réew ma wala créer terrorisme indi ko dugal ko ci sa biir réew maanaam la jël la huit huit huit wala ñu xool fu mel ne lu mel ne Casamance ñu yëngal ko financé ko bu ko defee mu yëngal réew mu yëngal sa nguur donc loolu moom mooy politique Occident gis nga niñ ko defee ci Libye def ko li nga xam ne def ci Irak Syrie partout lépp ay mensonges yoo xam ne dara du ci dëgg loolu yëpp parce que ay prétexte la yoo xam ne ni am na luñ bëgg ci gox yooyu am na luñ bëgg a jël ci seen pétrole seen gaz ak seen lépp Libye ba tey ji ñu ngi manque pétrole baak yëpp di ko manque di yóbbu Syrie gis nga ko noonu Irak gis nga ko noonu euh, tey ji nga dem euh, fu mel ne Irak ñu ñu la tey ji les chiites ñoo fa ëpp les te am nay jamono euh, un million et quelques la ñu woon tey ji seize millions yooyu ñoom ñoo gën a néew tey ji un million yooyu loolu yëpp ku ko xam jàng ko fekke ko yàlla may la nga dund ko di nga xam ni Occident ba tey jii euh, dóor bàyyeegu ko ba léegi ba léegi ci dóor rek la nekk euh, ci not réew yi ci la nekk te ci bu xëyee bu gontee ci lay xalaat ndax ni bëgg ni réew mi la koy doxal amuñu ko si dañ ko war a wuti te noo mën a def dañ ko dañ ko dañ koy wuti te da seen loxo war na caa joti euh, dañ leen koy jox bu ñu la ko joxul ñuy ñëw créer comme ni ma ko waxee créer problème ci sa biir réew nangu li nga li nga li nekk ci sa biir réew jël ko par la force dem seen yoon après corona euh, li nar a judd mooy ay mouvement de contestation yu bare bare bare moom na nga ko seetu moom waaw loolu moom bu la neexee nga bind ko ci kayit maa la ko wax gis nga bu corona jàllee mouvement de contestation yu bare bare bare de révolte yu bare bare bare comme ni les gilets jaunes amoon ci France yu mel noonu ni nga ko gis ci réew yu bare bare bare ndax économie bi nga xamee ni moo daanu nërmeelu comme ni ma ko wax. Euh, le professeur Mouhamed Galaye Ndiaye ñu siyaare di la bu baax a baax ci disponibilité bi léegi nag ñaari sa laaj tontu yi it tontu yu xóot la yu am solo la ñaari laaj euh, am na yoo xam ne dafa aju ci wàllu euh, fit mën nañ ko tuddee noonu te it noonu la benn laaj bi mooy ne euh, dafa am ñenn ñoo xam ne dañuy wax ne ñoom ay usuliyin lañ dañoo gis ne ci jamtalo bi nga xam ne jamtalatu na ko ci koo xam ne euh, corona bi da laa jot mm, ñàkk xoor gi mën naa tax corona bi euh, kii la dugg la euh, kii la tëral la ndax bëccëg bi yëpp doo naan te bu la duggee jàpp jëfandikoo ko gut bu baax boo naanee lu tàng wala nga lekk lu kii mën na ko puus mu dugg ci biir bi mu numtuti mu dee wante nag boo xooree bu boobaa lekkatoo naanatoo bu boobaa bu ñëwee euh, bala ngaa euh, dog mën naa jëfandiku ba boo naanatee dara fekk na moom xas na euh, xas na dëkk léegi nag ñoom ñu gis ne bon comme loolu dara loolu am na bon mënees naa bañ xoor ren ñu puus koor gi ba corona demul yoonam ñu soog a xoor wante Eh, koor gi moom ak corona àndut ndax gisee nga ko noonu fiq waaw eh, sëñ Pape Ndiaye laaj bi nga laaj am na solo ndax laaj la boo xamee ni jamono ji lëmbee na ci réseaux sociaux yi muy est ren dañoo war a puus weeru koor maanaam julit ñi nekk ci àdduna bi yëpp waruñoo woor ren dañoo war a aj sunu koor ba déwén nga xamee ni julit bu nekk kon bu woorul li mu war a def soit mooy mu fay am ci ñoo xamee ni dañu ni sax de mën génne génnee fidia euh, muy wax joo xamee ni du waxi dara ñu jéggal ma du waxi xam-xam ndax lu tax mooy scientifique yi médecin yi nga xamee ni ñoom ñoo waroon a wax ni nit ki bu fekkee ni dafa naanul euh, laminam tooyul feebar bi mën na ko dal bu fekkoon ni scientifique yi ñoom ñoo wax loola euh, ànd ak boroom xam-xami diine yi ca loola ñu jéem a jël fatwa génnee ko waaye loolu ci boppam moo amul maanaam question bi ci boppam ci internet dong lañ ko fore am ñu ko jël bëgg ko tontu jël ko def ko question scientifique waaye mësta nekk question scientifique ndax loolu scientifiquement ci boppam taxawul kon wax ni dañuy aj weeru koor defe naa ni loolu wax la joo xamee ni xeyru ilmi du waxi boroom xam-xam du wax boo xamee ni tamit sukkandiku na ci sukk sukkandikukaay boo xamee ni euh, mën nañu wax ni fu dëgër la sur le plan scientifique leneen li ci des mooy am na sax ay ay majamia bu mel ne al azhar ak ñooñu ñoo xamee jot nañ caa tontu parce que coow li dafa dem ba bari ñoom ñëpp wax na xaw xamal leen nañu ni euh, koor gi moom kenn mënu ko puus ngir wax joo xamee ni nekkul scientifique benn ñaareel bi mooy du waxi dara euh, te du nekku tamit motif boo xam ne war na tax donte loolu sax amoon na bu doon scientifique yi jóg nañu ba wax ni euh, nit ki bu fekkee ni naanul euh, lu tolloog suba ba jëm timis feebar bi mën na ko dal mën na ko dal loolu ba loolu ba buñ fa yeggoon sax loolu du tee ñuy aj weeru koor wi kenn ku ci nekk da maanaam ka à part lay doon koo xamee ni Euh, dañuy dem ba gis ni euh, maanaam euh, ci man manaatul manaatul xukum nga xamee ni dañuy dellu ci feebar bi est-ce que réellement li ñu wax ni impact bi am na wala amul ba pare waaw ba gis ni am na ci ay cas yu ci juddu ñu soogay mën a mën a jël décision fiq bu toll noonu kon ci gàttal daal mooy question bi du question boo xamee ni jar naa détaillé ci sama gis-gisu bopp ci sama gis-gisu bopp du question bu jar a ndax puus weeru koor moom defe naa ni euh, ku koy xalaat di ko wax ci jëmale ko ci question boo xamee ni euh, nekkul scientifique dafa mel ni sa diine danga ko woyfal lool lool lool lool lool. jërëjëf sëñ Jëlaay moom day xam naa sa tontu bi moom dana tas yaakaaru njóobeen yu bari am na bi annonce bi amee am na ñoo xam nañ ñu mënoon sëñ Jëlaay daal na fexe ba valider laaj boobu na corona moom wërta ànd ak koor. corona koor waruñoo ànd eh, léegi eh, waayante ne yow gis nga ne bon wax la boo xam ne ni fondewul eh, pour léegi ñu laaj suñu dernier suñu avant dernier mm, bi mooy ba tey léegi mu aji fiq mooy ne comme dañoo nekk ci confinement mo tëj nit ñi ci kër yi léegi ñu ngi julli ci ci jàkka je ndax gis nga ci wàllu fiq ci masaahib yi am na ñoo xam ne daganal nañ ilimaan ba nekk fële ca jàkk ja di julli moom ak benn nit ñaari nit ci naafile wala ci farata wala ci julli jumaa sax léegi nit ñi nekk ci kër ga comme ñu ngi koy gis wala ñu ngi koy dégg ñu ngi koy surtout ci télévision sax ñu ngi koy gis ci télévision bi muy sujjóot ak rukon wala ñu koy séen ma nga ne ndax mënees naa roy ci moom ci julli naafile yi wala jullik euh, àjjuma gi wala julli farata lu lu mu mënta doon ndax gis nga loolu waaw sëñ Pape Ndiaye maa ngi lay ziar bu baax ci vraiment laaj yu am solo yi ngay laaj laaju actualité yoo xamee ni euh, jullit bu nekk jamono ji euh, xëy na mi ngi koy dégg waaye xëy na amu ci ay tontu yu leer euh, li nga xamee nag moom moo jëm ci jamono ji boroom xam-xam yu ñu bari ñu ngi laaj est-ce que ma mënees na Euh, ak corona bi nga xamee ni nit ñi dañ leen a tëj ci seen i biir kër dañuy bañ nit ñi jaxasoo euh, dañuy bañ ay mbooloo nga xamee ni moo tax ñu tëj jàkk yi euh, est-ce que jullik naafila nga xamee ni mbooloo lañ ci gën a taamu est-ce que tey jii mënoo toog sa kër taal sa télévision imam ba nekk ca jàkk ja moom kese def lépp direct ci sa télévision wala ci internet wala ci Facebook Euh, nga topp nga koy seetaan directement nga xamee ni yow am nga direct bi nga xam ni mën nga ànd ak sa njaboot si biir kër waaye yow doo nekk imam ndax imam ba moom ma nga ci jàkk ja waaye yaa ngi koy topp ci internet bi wala yaa ngi koy topp ci télévision bi directement di ko gis muy kàbbar nga ko gis muy si joot di ko gis muy rukkoo waaw loolu question la boo xamee ni boroom xam-xam yi euh, yàgg nañ cee waxtaane Euh, xëy na du won question télévision waaye ca seen jamono ñoom euh, question booba ñoom imam Malik tontu na ci question bi imaamu sarxasi imaamu nawawi fil majmuu sarxasi fil mabsuut ñoom ñëpp tontu nañu ci question yooyu ci ngirub shafii ak ci ngirub imam malik ba ci xanafiye yi sax ñoom ñi nga xamee ne ñoom dañ koo bañ euh, ñoom dañoo bañ ni nit ki warul nekk ci këram toog di seetaan télévision di topp imam bi te moom mu nekk ci biir këram Euh, li ñuy wax rek mooy am na text bu am solo boo xamee ni dinaa ko dugal léegi léegi mi ngi nekk ci al mudawana mudawana nag buñ ko waxee mooy référence euh, bi gën a mag ci ngiru imam Malik euh, mudawana al kubra nga xamee ni boo demee ci tom un page cent soixante quinze da nga dégg foofu imam Malik di fa wax wax ju am solo nee na képp koo xamee ni julli nga ci kër wala ci place boo xamee ni fa nga nekk yaa nga yaa nekk ci kanamu imam bi ci kanamu imam bi nga nekk maanaam nekkoo ci ginnaaw normalement ki topp imam dafa nekk ci ginnaaw waaye nag fekk yow yaa nga nekk ca kanamu imam ba nee na imam Malik nee na fekk yaa ngi dégg ay kàbbaram di dégg ay rukoom ak i sujootam nee na sa julli baax na sa julli baax na kon ñu dégg ci ni ba pare sax mu wax ni euh, ci alu Omar maanaam famille Omar ibnul Xattaab nga xamee ni seen kër dafa ne woon ca kanamu jumaa ja ñoom dañ daan ànd ak jumaa ji di julli maanaam euh, te nekkuñu ci ginnaaw imaam bi ndax question bi aslul masala bi mi ngi nekk ci ñaari point mën nañ koo tënk ci ñaari point bi ci njëkk mooy est-ce que julli ci ginnaaw imaam est-ce que sart la chartu sixa la wala chartu kamal la eh, est ce que julli imam bi nekk sa kanam yow nga nekk ci ginnaaw est ce que loolu forcément boo ko defee sa julli baax na maanaam julli gi day wér wala boo ko deful sa julli du wér maanaam il faut que nga nekk ci ginnaaw imam bi kooku mooy bu njëkk ñenn ñi ni charte la maanaam condition la mënta ñàkk waaye sart la boo xamee ne charte sixa la maanaam condition de validité la maanaam mooy tax sa julli baax loolu ñu ko wax moom mooy xanafiya yi nee nañ condition la boo xam ne mënta ñàkk pour su julli baax boo nekkee ci kanamu imam bi su julli baaxu imam malik nag ngiru imam malik ak ci ngiru shafiiya yi ñoom dañu ni du chartu siha chartu kamal la maanaam sart la boo xamee ni dana taaral julli gi rek dana ko matal maanaam matal waaye du sart boo xamee ni bu manqué julli ga du baax kon chartu kamal la du chartu sixa beneen bi ci des mooy euh, beneen bi ci des mooy est-ce gis imam bi maanaam ittisaalu sufuf maanaam sàppe yi est-ce que dañoo war a euh, tegaloo maanaam jokkaloo wala bu fekkee ni sàppe yi am na fu muy dem ba mu yàgg jokkalootuñu am lu dox seen diggante maanaam même bu fekkoon ni ab dex su ndaw sax moo dox si diggante euh, ñii julli wala ab mbedd est-ce julli jooju dana baax wala du baax ndax sàppe yee jokkoowuñu ndax am na lu dox ci diggante maamuum yi ñi nga xam ne ñoom lañ jiite am na lu dox seen diggante ak ak ak ñeneen yi ak imam bi kon loolu mooy sart ñaareel bi nga xamee ni dañu wax ni est-ce que loolu sart la pour julli gi baax wala mu bon ñoom maliki yi ak shafii yi ñoom dañu ni loola du charte pour julli ga euh, baax euh, du charte pour julli ga euh, maanaam baax wala mu bon ñoom li ñu wax mooy ni mën nga sàppe yi mën naa bañ jokkaloo sa te sa julli baax waaw loolu laa bëgg a wax sàppe yi mën naa bañ a jokkaloo te sag julli baax te loolu imaam Malik wax na ko naka noonu tamit imaamu Sarxasi wax na ko ci al-Mabsuut ñëw na aussi ci al-Majmuu ci ki nga xamee ni mooy al imaam an kon bu ko defee euh, jamono jii ñu toll surtout jamonoy corona ci jullig naafi la je bien ci jullig naafi la euh, ak yombal la ak tey taysiir la kon mën ngaa toog sa kër bu fekkee ni am na imaam boo xamee ni ma nga ci jàkk ja moo xam nga yaa ngi dégg allah akbar yi doonte gisoo ko da nga nek sa biir keur man nga ànd ak imam ba di julli nafila mo xam télévision la man nga ko tek sa kanam ànd ak imam bi di julli nafila bu fekke ni direct la loolu borom xam-xam yi nangu nañ ko qiyasan ci li nga xamé ni mooy texte bi ñëw ci al mudawana ak bi ñëw ci al mabsut ak bi ñëw ci al majmu' bu imam an nawawi wa wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala jërëjëf professeur ñu lay sante bu baax di la gërëm ci disponibilité bi jël nañ sa temps démb démb ñu doon waxtaan ci wàllu xam-xam lu mat ñaari waxtu genn wàllu tey it ñu jëlaat sa temps jëla waxtaan ak yow lu mat ñaari waxtu wax dëgg yàlla euh, ñu ngi koy ñu ngi lay coono yi wante nag yooyu yëpp liggéey la ci waaru wi ci di daawa ilallahi woote jëm ci yàlla maa ngi fàttaliku euh, rahimullahu euh, sëñ Nasiru ibnu Alaaji Ibrahima Niass dafa mas ñëw fii waxtaan wa gudd lool yàgg lool e, gars yi laaj yi rek ba te koo yi am ñuy coow naan nañ nañ ko yi dafa sonn mu ne leen déedéet e, ñëw ma fi pour noppalu damaa ñëw ngir ngeen laaj ma ma ma ma wax leen macha allah am na ñoo xam ne ku ñu bàyyi ci waar wi duñ ci tayal moom noonu rek la saa way leen laaj rek dañuy kontaan Sidi Lamine yaa ngi may fàttali it Sidi Lamine macha allah léeg-léeg an tamit ñuy waxtaan ci xam-xam mu gudd lool. waaw léegi léegi nag ci wàllu diine ci wàllu xam-xam ci lépp rek ñuy waxtaan waaye nag ci aksaan ci politique rek comme ni ma wuuteeg yow ci wàllu complot ak nangam noonu la ñu leen wuutewoo ci wàllu politique su ñëwee ci politique rek mu ne ko non mbir mu noonu mu ne ma yow dundoo politique na nga yem ci sa euh, xutba yi ngay ngay ngay wax sa ay alxuraan yi ak sa hadis nga yem foofu waaye politique yow xamuloo ko dunduloo ko xam naa moo tax yow euh, xëy na mm, man comprendre ma dëgg-dëgg lépp lu ne rek bëggu ne complot la man loolu man mun ma ci ànd dëgg la nag nit ki bu naawee fii nit ñi dund ci kawam nit ki eh, di ko orienté ni ñu ko nañ eh, eh, comme fu ak naïf naïvité toll fu ak ñàkk solom toll nit ñi di ko orienté comme noonu waaye nag lu nu lumoo lumu rek mu amara la kooku fikra la boo xam ne man yaakaar naa sa kii boobu bi ñu ko dugalee waxoon waxoon naa la man fikra boobu gisuma ko waaye nag tekkiwut na amut c'est parce que xëy na sama niveau ko àggut xalaa euh, kulin ñu ngi sant bu baax nag di la gërëm ci disponibilité bi nga am di kontaan lool nag wax dëgg yàlla bi ñaan yàlla ñu dajewaat beneen yoon waaw xanaa suñu laaj bu mujj rek mooy ne kañ euh, lan ay dénkaan yi nga xam ne am nga ko ci ñi nga xam ne ñooy doomu sénégalais yi eh, en tant que ngay wax làkk boo xam ne làkku Sénégal la eh, lan nga leen di dénk ci wàllu corona bi ci wàllu koor gi eh, lan nga leen ci dénk ñu ngi lay sant bu baax. waaw Serigne Pam Ndiaye maa ngi lay ziare bu baax di am mbégte lool ndax ci seq yow jotaay bi ndax question yi ku ko dégg xam ni borom xam-xam bu mag a mag a mag moo koy posé. waaye di ko posé nag ab ndonga to mu ndonga lu ndaw loo xamee ni moom alwaam soriwul moo tax xëy na question yi niveau bi ni mu kawee xëy na tontu yee yeggul foofa moo tax ñu ngi koy jégalu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaye ñu ngi lay ziare bu baax a baax di am mbégte lool lool lool vraiment seq ak yow jotaay te nekkoon na jotaay bu dal jotaayu xam-xam waaye jotaayu échange bu ama am solo donte xam naa ne yow sa liggéey Euh, moo nekkoon rek di ma booster di ma yëngal euh, bañ a d'accord ak man ci ay gis-gis pour loolu yëpp pour feeñal xam-xam ak gën a leeral xam-xam ndax euh, xam-xam lépp mooy li ñu naan avec le choc des des des opinions jaillit la vérité il faut que opinions yi di mbëkkante pour dëgg mën a génn question bu mujj bi nga laaj nag muy ana lan la ñuy dénk waaye man nag xam naa tuuti naa lool pour dénk sénégalais yi waaye liñ mën a wax rek mooy ni euh, euh, société civile cim réew dafa am solo société civile cim réew dafa am solo ndax après corona comme ni mu leen ko waxee dana bëri yu judd dana bëri ay mouvement de contestation dana bëri loo xamee ni euh, lu ñuy kaas la ndax jàpp nañu ni am na groupe bu ndaw ci àdduna bi nga xam ne ñoom ñoo gérer économie mondiale bi ñooy fooye li ëpp ci àdduna bi sept milliards et quelque ci doomu aadama ñoo xamee ni dañ leen a jël def leen ay foowukaay di leen fooye euh, loolu di ngeen ko gis incha allahu taala yal nañ fi yàlla bàyyi bu après corona bu boobaa nag li may ñaan société civile mooy ñu yeewu boroom xam-xam yi jóg nangoo wax dëgg nangu leeral wala li xew ci àdduna bi parce que boroom xam-xam cim réew yàgg naa ko wax mooy الهوارة تيم سوسيتي بي ديكو أفيرتير بكو منتا أفيرتير تاميت بوغي سيني لي لوي لور سوسيتي بي دي لي دقل متكي بارا ممني لي موي دق لي دو دق بوبوبا تاميت سوسيتي سيفير ريك مو منا جوك پور منا سوقالي عدونا بي وخو مكو تي سنگار ريك مي پور لموند تير موند يب تير لموند ميزيلما نيو خمني سوسيتي سيفير مو منا سوبي ريوي بايناس رضي الله تعالى عنه وخون ناني الشعوب أقوى من الحكومات وخوناني تير ليتر بوم بيندون آه، مارسيل لوفيف nga xamé ni mom mo nekkon euh ki اسقف بي گنا ماك في موي ارشيفيك بي گنا ماك سي دكار سي جامونو جوجو باينس داكو بيندون ليتر واي لام كو تي واخ موي داف كو دافانيكو الحكومات الشعوب اقوى من الحكومات waaw na xam ni euh, population yi ñoom ñoo ëpp doole maanaam gouverne gouvernement yi parce que tey ji gouvernement yi li ñuy bëgg doxal ci réew yépp bu fekkee population bi jóg nañ jéngu bañ rek loola du sotti loolu daal mooy li nga xamee ni waxu Baye Niass boobu daal ci lay tënk sama wax di leen wax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu